إنني أرجو من الواسع الحكيم بجاه المغفانا سر الحق بالحكيم ألا إنني أرجو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 الله الله أكبر الله أكبر walhamdulillahi kasiran di nuyu mbokki taalibe yëpp te di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa li kilifa gi yoon wépp ci Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu kilifa li kilifa bi sëñ Cheikh Mouhamadou di tey suñu kilifa li kilifa barab bi sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Cheikh ñu ngi leen di ziyaara leen ndokkeel ci bis bi. te di leen ñaanal it. yàlla bàyyi leen fi. yàlla bàyyi leen fi. ba seen yéene ci yoonu Serigne Touba. ba seen yéene ci yoonu Serigne Touba yi. ak seen yéene ci lislaam. ak seen yéene ci lislaam. ñu àggale ko lépp. ñu àggale ko lépp. te def ko ci seen sago. te def ko ci seen sago. te amee ko ni ñu ko bëggee ba mu kawe suñ seen jot kawe suñ jot ñun ñëpp. te amee ko ni ñu ko bëggee ba am ci lu kawe seen jot ak kawe suñu jot ñun ñëpp. waaw xanaa di fàttaliwaat bis bi rek. xanaa di fàttaliwaat bis bi rek. waaw tey moom bisu bisu bisu la. tey jii bisu iid la. waaw nekk iidul adha. mooy feet mooy feet goo xam ne dañ cee baaxoo daa ànd ak ren moo mooy feet goo xam ne daa ànd ak ren nga xam ne nag. ren di nga xam ne. lii sabab bi mooy ndigal loo xam ne. lii sabab mooy ndigal loo xam ne. suñu maam Ibrahima. suñu maam Ibrahima. jotoon na ko. jotoon na ko. te ko ci suñu borom. jëlee ko ci suñu borom. ne ko na ren di doomam. ne ko na ren di doomam. waaw loolee moo wa fadaynaahu bi zikrin aziim. yàlla wax ne wa fadaynaahu kon day mel lii rek moo loolu rek moo waral lii. loolu moo waral lii bis bi. kon nga xam ne rek li am solo. kon nga xam ne li am solo. am kilifa. mooy am kilifa. am dégg ndigal. te dégg ndigal. waaw ñaar yooyu. ndax ñaar yooyu. ki ñu jox ndigal li. ki ñu jox ndigal li. mooy euh, jaamu bu yàlla. jaamu bu yàlla la. te ab yonente. te ab yonente ab yonente. ki ñu ko jox ci doom ki ñu ko jox keneen ki mooy doomam. moom it moom it demee noonu ci moom doon doon demee noonu rek. moom it demee noonu ci. waaye nag. waaye nag. fu ñu jaar waxtaan tuuti ci. ki nga xam ne nag moom la digal wàcc moom Seydina Ibrahim ki nga xam ne moom lañ digal di wàcc ci moom muy Seydina Ibrahim maanaam buñ bëggee xam wàccuwaayam ak darajaam buñ bëggee xam wàccuwaayu Seydina Ibrahim ak darajaam mën nañ cee tegtaloo ñaari aaya rek mën nañ cee tegtaloo ñaari aaya ci alquranul karim wa iz ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahun wa iz ibtalaa Ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna. qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama. qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama. qaala wa min durriyyatii. qaala wa min durriyyatii. qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin. qaala laa yanaalu ahdi zaalimiin. Ah, kon loolu rek. kon loolu rek. tegtale na. tegtale na. fi mu toll ci suñu borom. suñu Seydina Ibrahima fi mu toll ci suñu borom. indi mooy ba mu ko ba ko yàlla nattoo nattu boobu noonu mooy bi ko yàlla nattoo nattu boobu xëy na sax yeneen nattu lu bokkut ak yi am na yax yeneen yax yu nattu yu bokkut ak yi waaw waaye kon day mel ni jëfe nangu nangu nga nattu ba waaye ni ko yàlla nattu woon nangu na ko nangu koo jëfe nangu koo jëfe topp ndigal ak ay topp ndigal ak bàyyi tere ak nangoo muñ nangoo muñ tax na mu jural ko inni jaayilu ko linnaasi imaama tax na lim ko jural mooy inni jaayilu ko linnaasi imaama yàlla def ko mu nekk njiit ci nit ñëpp waaw ba ko yàlla defee loolu nag ba yàlla defee loolu nag mu xam ne ginnaaw toll na ci di di jëflanteeg sunu borom mu xam ne toll na ci jëflanteeg sunu borom dem na ba am mbégte ci sunu borom dem na ba am moom mu mu mu mel ne ko ci kaaw rek mel ne ko ci occasion néew mu mel ne ku occasionné ci loolu. li ko yàlla defal moom mu bañ a yem ci waaye na jàll ba ci ay sëtam. li ko yàlla defal mu bëgg mu jàll ci ay sëtam. moo tax moo ko min zurriyati. moo ne ko min zurriyati. mu ne ko laa yanaalu ahdi zalimin. ko xaaral laa yanaalu ahdi ko lim ñaan. kon day mel ne sunu borom gàntu Seydina Ibrahima ko ñaanoon. ne ko damaa li nga ma defal nga defal ko waaye nag daanaka laa yanaalu ahdi zalimin. waaye sunu borom na ne ko nag. laa yanaalu haadiya zaalimiin kon day mel ku tegu ci yoon wa rek kon may day mel ni képp ku tegu ci yoon wa kon ñaan googu mën naa dugg ci yow mën ñaan googu mën nga mën ngaa dugg ci biir ñaan googu ndax boo ko xoolee ndax bu ñu ko xoolee euh, daanaka rek day mel ni yeneen diine yeneen diine yi lu mel ni diine yi nasaraan ak diine yahud bu ñu xoolee yeneen diine yëpp mooy diine nasaraan yi ña ko ña yàlla wàcce woon ci ñoom téere yi ba ba diine yi wàcc ñoom ñëpp ci dañuy sëtuwaat ci Seydina Ibrahima. ñi yàlla wàcce woon téere yooyu yëpp dañuy sëtuwaat ci Seydina Ibrahima. naka noonu it yonent bi sallallahu ko xoolee kii yam day delluwaat ci Seydina Ismaïl. mu delluwaat ci moom askanam cosaan day delluwaat ci Seydina Ibrahima. waaw kon Seydina Ibrahima nit ku nit ku am solo la. kon Seydina Ibrahima nit ku am wàccuwaay la ku am solo la. boo xoolee it. ñu xooleeti li ñuy toll nii mooy aj li ñu toll nii mooy aj boo xoolee lañ fay def lañ fay def lépp ci aj gi mooy sànni jamra ak ak marwa ak yu bari yeneen yu bari lañ fay def mel ne rek dundalaat sunnaam la mel ne dundalaat sunna Seydina Ibrahima ak li ñu def nii muy ray ray xar ak li ñu war a def nii muy rendi xar bokk na ci yaa mu doyaat ko sëkk nag man bokkaat na ci lenn nit mooy bokkoon na ci leneen it suñu bi bi yàlla yonent bi yabalee Seydina Muhammad bi yàlla yabalee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy ki mujj yonente yi nga xam ne mooy ki mujj ci yonente yi mu ñëw mu ne ko summa awxaynaa ilayka an ittabia millata ibrahima xanifa yàlla dane ko summa awxaynaa ilayka an ittabia millata ibrahima ibrahima xanifa xanifa ah kon loolu lépp nag kon loolu lépp day wane day tolloo day wane wàccuwaayam rek day wane rek wàccuwaayu Seydina Ibrahima bi ko suñu borom jox waaw kon nag loolu lépp li ko may rek kon li ta lépp nag li ko may Seydina Ibrahima mooy yàlla ak nangoo jëfe ndigal ak nangoo muñ ay coono mooy topp sunu borom ci jëfe ay ndigalam ak moytu ay tere ak nangoo mu nattu yi ak nangoo muñ nattu sunu borom ko teg moo ko may mu de mu am loolu lépp rek loolu moo ko may mu am li mu am lépp kon gën a fo jëlaat ci loolu dund gën a farluwaat ni nit kon nag li ciy jàngate mooy ñu gën a farluwaat ak ci yoonu jub gën a tënku ci ndigali yàlla yi mu ne te gën a góorgóorlu te gën a muñ rek. te gën a góorgóorlu te gën a muñ. xam ne jamono moom jafe na lool. xam ne jamono jafe na lool. jafe-jafe yi bari na. jafe-jafe yi bari na. waaye nag buñ buñ buñ delloowaatee ci nii rek. waaye nag bu ñu delloowaatee ci li waral bis bi ak ci ko ci dal ci kawam de. ak ñeneen ñu baax ñu mel ni moom. ak ñeneen ñu baax ñu mel ni moom. ci yonent yi ci yonent yi. ak eh, awliyaa ak awliyaa ulaa yi. buñ xoolee ci ñooñu rek dañ man am fuñ sukkandiku ba wax dëgg yàlla mën a muñ lu bari. bu ñu xoolee ci ñoom danañ am fuñ sukkandiku ba mën a muñ lu baree bari. waaw bu loolu weesoo nag. bu loolu weesoo nag. ah mooy réew mi ñu bokk dëkk nag. réew mi ñi nga xam ne dañ koo bokk dëkk. ñu toll ci loo xam ne eh, dañu bëgg tànnaat ñu war a teewal ca pencum réew mi. jëm ci. ay tànneef yoo xam ne dañu war a tànn ay ndaw yoo xam ne dañuy teewal askan wi ci assemblée nationale. waaw loolu nag mel na ne li ñuy wax euh, ànd na ak tension ak coow ak ay xoloo xëccoo lu bari daal mel na ne ànd lii ñu mel na ak ay xëccoo ay coow yu baree bari. waaw te nag bokk na ci li ñu bëggoon waxtaanee mooy bu loolu weesoo mooy naka la ñu mën a dundaloo dundaloo ci jàmm. loolu lépp liñ ci bëgg a wax mooy naka la ñuy war a mën a fexe ba dundandoo ci jàmm jàmm am ci réew mi. nit ñi seq jàmm seen diggante. nit ñi seq jàmm ci seen diggante. ah kon day mel ne jàmm day mel ne jàmm nag. mënta am te li ñuy wax al adala mooy maandute amut. mënta am te li ñuy wax adala amut mooy maandute. mooy justice. justice fu mu jaar am. loolu am jàmm ah, léegi nag justice moom mooy li nga xam ne yoon eh, tëral na ko. maandute nag mooy li yoon tëral. réew mu ne am na constitution am na loi ak règle yoo xam ne. réew mu ne am na ay constitution ak charte yoo xam ne moo leen tënk. kon loolu bu ñu bëggee jàmm am. bu ñu bëggee jàmm am ci jaar sukkandiku ci loola. fu ñu jaar sukkandiku ci tegal doxal yoon. waaw ah, te te te te te te bañ te bañ a jëng jëm fenn. te yoon bañ a jëng jëm fenn. ñëpp yem ci. ñëpp yem ci kanamu yoon. waaw léegi nag bu ko xoolee réew moom. dañu bu ñu xoolee ci réew yi nag. fan moom mel na ni fi xaw naa jaxasoo. mel na ni xew mbir mi jaxasoo na lool. te it mel na ne it euh, mel na daal boo ko xoolee mel na léeg-léeg mu dem ba xaw a ëpp ay loxo sax. mel na ne jëf yi dana léeg-léeg mu toll foo xam ne dana ëpp mel na lu ëpp ay loxo lool. mu mel ne mu mel ne diglonte. mu mel ne diglonte. Euh, euh, ak li ñuy wax waxtaan li ñuy wax waxtaan. waaw na ne it xaw naa raf manqué tuuti. xaw naa manqué lool rafet na lool. te loolu nag bu tee dëkk. loolu nag bu tee dëkk ci réew ba noppi nag lu mel ne injustice lal ko. ba noppi ñàkk a maandu te am ci àtte yi. waaw ñàkk a injustice daa mel na ay façon yu bari la. waaw ñàkk a maandu it mooy ay façon yu bari la. bokk na ci ñàkk sécurité. mooy bokk na ci ñàkk sécurité. insécurité. ndax sécurité. ak insécurité nag ñaar la insécurité ci ci jëmm. ndax nit mën naa ñàkk sécurité ci jëmm. waaye insécurité alimentaire it maanaam ñàkk loo dundee. nit it mën naa ñàkk sécurité ci ñàkk am lu mu dundi day mel ne bu seet saar wu gàtt la waaye bu am solo la ñu xoolee ci alquran am na saar wu gàtt bu am solo mooy li ilaafi qurayshin li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaai ilaafihim rihlata shitaai wasayf فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف kon day mel ne day mel ne kooku suñu borom li mu fi wax mooy saar boobu suñu borom li mu ci wax mooy mooy yéen waa Quraysh war ngeen sant yàlla yéen waa Quraysh war ngeen a sant yàlla ndax kat man di dem tukki ndax yàlla may leen ngeen man di dem tukki ko ñëw dema dem ko ñëw na leen it ngeen am ngeen ngeen am sécurité am sécurité ba du ngeen gis lu ngeen ragal ba du ngeen gis ngeen ragal defin ngeen am sécurité alimentaire defin ngeen am sécurité alimentaire la ko wax ne boo ko am bu ñu ko amee kon na ngeen jaamu yàlla ñaar yooyu nag nit bu ko amee dafa war a dafa war a jaamu yàlla. yàlla mel ne ginnaaw defal leen lu kon nag ni ngeen ma jaamu. yàlla ne moom ginnaaw defal na leen loolu kon na ngeen ma jaamu. kon loolu lay mel ne naa ne bu ñu bëggee maanu te am ko loolu am. bëggee maanu am faaw ñu fexe ba nit ñi am sécurité seen i jëmm. Hmm. fexe am sécurité seen i dund. Hmm. ñaareel ba it jàmm moo mënta am it. ñaareel ba it jàmm mënta am. insécurité bare bokk na ci. bokk na ci it ci ñàkk sécurité. day mel ne réew mi coow li waaye maanaam mel na ni yëddu yëddu bi mel na ne réew mi ñu nekk yëddu gi bari na ak lu ñutu mbiri jàmbur ak lu ñu ñutu mbiri jàmbur boo ko doon mën a tënk daal boo ko doon mën a tënk daal ah, maanaam fu jaar waxe ko noonu fu jaar waxe ko ndax eh, day mel lu ci ne boo bëggee mu wax da koy wax nam doon ak nam doone day mel ne lu ci nekk rek boo bëggee mu leer da nga koy wax nam doone waaw ah, dama la ci doon am am leen day mel ne réew boo ko doon xool li ngay gis mooy réew mi buñ ko doon xool li ñuy gis mooy. mooy espionné. mooy espionné. manipuler. ak manipulation. ak médiatiser. ak médiatiser. déstabiliser. ak déstabiliser. wax dëgg yàlla neexut a wax waaye nag. lu neexut wax nag waaye. waaye daanaka réew mi loolu la dund. waaye dafa mel ne réew mi loolu la ñuy dund. te loolu nag mënut a am fenn jàmm di am. te loolu nag mënut am fenn jàmm di fa am. nit bu amutul sekkereem. ndax nit bu fekkee ne amul sekkere ci ak ci mboppam ak ci njabootam. yow wax dëgg yàlla nag. ku sekkee secret ne ku sa lépp ne fàng ci biti ndax nit bu léppam ne fàng ci biti loolu wax dëgg yàlla nag eh, dana dana naqari mu ànd ak jàmm loolu dana du mën a ànd ak jàmm ba tax daal loolu moom ne ci ne ci ñëpp bàyyi xel loolu kon ñëpp war nañ ci bàyyi xel bu ko defee li ci des it li ci des it mooy waa ah, ñun taalibe yi ñun taalibe yi gën a góorgóorluwaat ñu gën a góorgóorluwaat bu baax te gën a farluwaat te gën a farluwaat bu baax xam ne ki ñu am xam ne ki ñu am moom dara mos a yomb moom dara mos a dara mit mustawaya dara mit mustawaya ndax boo ko xoolee ndax bu ñu ko xoolee ay noonam ñoo ko fekk ay noonam ñoo ko fekk ay noonam ñoo fekk fa mu dëkk fa mu dëkk donte sax moom loolee ni mu ko jàppe woon donte sax moom loolu ni ko jàppe woon jàpp na ne rek jàpp na ne natt la bu ko yàlla teg mu war cee liggéeyal yàlla natt la bu ko yàlla tegoon mu war cee liggéeyal yàlla moo tax ah, moom jàppewu ko noonu tax moom jàppewu ko noonu waaye nag man defee rek bu lu war a am ñe dañu yàpp ne loolu tooñ la waaye nag lu war a bu dee lu war a amit loolu ñu jàpp ne ay noonam dañ koo tooñal ñu ko jëlee yóbbu ko ci ci yoonu géej gi biñ ko jëlee yóbbu ko ci yoonu géej gi ba mu ko jógee it ñu yóbbu ko yóbbuti ko gànnaar ba mu jógee ci yoonu géej ñu jël ko yóbbu ko gànnaar ba mu ko jógee it ñu indeeti ko Ceyeen ba mu fa jógee ñu andi ko Thiéyeen. ginnaaw bi ñu andi ko Njaareem. gannaaw bi ko Njaareem. mu fa fukki at ak juróom yaakaar. am fa fukki at ak juróom. booleeg ak ak yi jiitu woon moom la xanaa at yoo takku lay doon. boo ko loolu lu ko jiitoon at yu bari lay doon yoo xam ne ci loxoy noonu yi la ko neex. li mu mujj def Njaareem xam ne loolu dafa nekkoon résidence surveillée. fukki at ak juróom def Njaareem sëriñ bi dañoo ne dafa nekkoon ci résidence surveillée. waaw résidence surveillée nag ko mën naa ne. kuñ kuñ te kuñ yóbbu ci barab la rek teg la ci barab waaye nag daanaka li nga mooy dañ ko tegoon ci barab boobu di mooy ko woon dem fenn. amutoon benn liberté tax boppam. sëriñ bi am day mel ne amutoon benn liberté ci boppam. koo xam ne nag sa kilifa ci loolu la jaar. képp koo xam nag sa kilifa ci méttit yooyu ak yooyu la jaar. kon ne wax dëgg yàlla yow boo bëggee lu yomb it xam ne rek ku sa kilifa jaar ci natt yooyu ak méttit yooyu. war ngaa xam ne boo bëggee lu yomb mbir mi du mën a yomb. foofee jamono tolloon nag. foofee jamono tolloon bu njëkk. nga xam ne yooyu noonu lañ daan jëfe nga xam ne noonu yi noonu lañ daan jëfee. tey nag jamono soppiku tey jii nag jamono dafa soppiku. jamono soppiku na. jamono soppiku na mel ne noonu yi am na beneen xeex bu bees bu jël. ndax am nañ ay ay jumtukaay yu gën a xari ndax léegi am nañ ay jumtukaay yu gën a xari xarala yoo xam ne. ay xarala yoo xam ne ni. àgg ci nit ak jot ci nit. àgg ci nit ki ak jot ci nit ki. lu yomb la. da leen di yomb lool. li ñuy wax ak zaka ak zakaawul yi. am na lu ñu tuddee ak zakaatu zakaawul istinaa yi. mooy li wax intelligence artificielle. mooy li ñuy wax intelligence artificielle. loolu mel na ne àgg na ci. loolu mel ne ne àgg na ci tey. ñu mën jëfandikoo ay jumtukaay yu xareñ. ñu mën a noon yi mën a jëfandikoo ay jumtukaay yu xareñ yoo xam ne. daanaka sax mën ngaa teg mën ngaa mën nañoo ba ci sa kër def fa loo xam ne daanaka mën nañoo ñëw sax ba ci sa kër ñu def fa loo xam ne loo nekk ñu ngi leen lay contrôlé nekk lu ne dañ koy contrôlé di di ko xam nag bu jamono tolloo foofu kon nag bu jamono tolloo foofu ah, yi fi jaxasoo yi fi jaxasoo lool yooyu yëpp nag day mat di waxtaane yooyu yëpp dafa mat di waxtaane kon mooy li ma leen wax dëgg ba mu bu njëkk ba mooy bu njëkk bi résidence surveillée la woon bu njëkk bi ñoom noonu yi résidence surveillée lañ def comme lañ defoon bi ca Njaaréem waaye nag tey résidence contrôlée la waaye dafa mel ne tey ci résidence contrôlée lañ nekk kon demel kon ñu ngi lay contrôlé mooy yaa ngi nekk sa liberté waaye mel ne amoo ah, bu fa jamono tolloo loolu nag bu fa jamono dafa mat di waxtaane ku ne mën bàyyi ndax ku ne mën cee bàyyi xel ñu ngi jégaluwaat bu baax rek kon ñu ngi jégaluwaat bu baax rek ñaan rek